maa ngi tudd Aline Diop donc euh, maa ngi nekk euh, grand parti ci laay yëngatu et puis euh, donc mais nag auparavant maa ngi nekkoon AFP alliance des force de progrès fa laa nekkoon après laa ko bàyyi ñëw dugg ay dugg grand parti. voilà loolu mooy doon suñu laaj bu njëkk yow AFP lañ la xamoon comme membre fondateur mhm. léegi naka nga mën a expliquer lan moo justifier sa départ AFP dem grand parti. voilà donc ñun 1999 en juin. bi président Moustapha Niass euh, yëkkatee grand yëkkatee alliance des forces de progrès ñun fii ci cees ñun ñoo ko njëkk taxawal ñu nekk ci euh, ba récemment jafe-jafe yi AFP amoon moo tax ñu génn ci parce que dem nañu ba leaderu parti bi ne moom du nekk candidat du supporter benn candidat ah teg ci yeneen kàddu yoo xam ne ñun kàddu yooyu daal ah du woon ñu rafet lu ñu xam ne nag ñun parti ku koy taxawal pour jël réew a tax wala pour. pour bokk ci ñuy gouverner moo tax waaye na jëloo parti pour toppaati loolu moo tax ñu génn ñu génn AFP. kon daal yow da ngay jàpp ni daal bi yow mënoo ci mënoo ci kii daal. Euh, non parce que loolu taxuloon ñu créer parti bi. parce que AFP bi ñu koy créer ay parti ngi ñu dugg ci parti fi nekkoon mais dañoo bàyyi parti yooyu ndax nañuy doxale dugg créer AFP kon mënuñoo dem ba ci digg bi di nekk parti yóbbaale. mënuñoo lang ci kenn. yow responsable nga woon ci parti bi est-ce que ci yow sa démarche bi nga def am na ñu la ci topp. responsable woon laa ci parce que man euh, fii ci Thiès Est bon disons man ci ñu koy andi ci ñu koy coordonné laa bokk mun naa ne sax euh, maa koy coordonné les activités de l'AFP maa ko doon coordonné fii à Thiès Est ensuite conseil municipal la donc euh, responsable laa ci biir AFP ñi ma ci topp am na mais duñu dañoo bëggul woon a jóg di wax nit ñi kaay leen topp ñu parce que loolu yàq la politique la ku nekk ak la ngay yëg ku nekk ak la ngay sentir ñun yëgoon nañu ne dañuy dem am na ñu ci topp am na ñu toog fa ñu nekkoon aussi waane defe naa nag ñu bari topp nañu euh, léegi bi nga ñëwee ci grand parti ba léegi fan ngeen toll ci liggéeyu euh, samp parti bi léegi ci Thiès. Euh, le 17 janvier la fi docteur Mamadou Moustapha Wane ñëw indil ñu carte grand parti le 17 janvier indi mille cartes ñu dugal mille cartes yi dans le Diobass te des na doyu fa mille cartes yi moom la ñu répartir dans la commune de Thiès Est Thiès Ouest ak Thiès Nord donc mille cartes yi. pratiquement jeex na te ñoo ngi bëgg a demander sax un beneen rallonge pour ñu yokkal ñu ko samp nañ fi ay comité nous avons un pool de 93 personnes yokk na ñaar bërki démb rek ñu ngi nekk entre Kayar Diender bi jëm bi jëm Lébu euh, Fandène cees évidemment ak ak Jobaas ñu ngi foofu di yëngatu ak Ceneba foofu ñu ngi fa yëngatu ñu ngi monté suñu comité 93 personnes yooyu ñoom ñooy 93 personnes yi nga xam ne ñoom ñooy taxawal pour grand parti am ay comité kenn ku ci nekk da nga monté au minimum au minimum je dis ko ëpp. demagul ci samp nit na mooy mooy jiite fii yooyu la. parce que xam nga loolu day yàq ndaje. parce que parti boo xam ne day soog a juddu bëgg ñoo am ay ay ay disons ay malformation congénitale maanaam juddu rek indaale laago laago parti yu bari mooy positionnement ñun li ñu soxal fi mu nekk nii mooy ñaari mbir. premièrement euh, parti bi ñu implanté ko ñëpp àndandoo yëkkateendoo ko mu taxaw ba pare ñu man a wane suñu mbër waaw ne bëgg fee taxaw di positionné wu kii mooy jiite kii mooy jiite day yàq daje parce que am na ñoo xam ne nii bëgg nañoo ñëw ci parti bi mais bu ñu yégee ni taxawal nañu lépp ba pare te jaayaguñu carte ba pare loolu contradiction la sax jaayeguñu carte bay pare bay bay restructuré mais lan mooy seen objectif fii ci fii ci Thiès. suñu objectif d' abord bon peut-être que am nañu suñu grand objectif c' est que ëllëg ëllëg si biir suñu président Malick Gakou jël réew mi. maintenant ban na am ay objectifs intermédiaires maanaam au niveau de Thiès ñu lëkkaloog. population thiessoise yi génne leen ci jafe-jafe yu ñu nekk au niveau des municipalités au niveau des au niveau euh, des des des demandes sociales yi nga xam ne nii député yi ñoo ko war a porté yooyu yëpp ay xeex la yoo xam ne dinañ ci positionné wu xeex ci fexe ci am dara. lan mooy seen gis-gis ci ci événement politique yi fi yi fi jaar euh, Macky Sall ñu woon day wàññi wàññiwul ak ni mu organiser référendum beeg ni affaire yi demee yéen ban jàngat ngeen ci def. bon ñun jàngat bi ñu ci am mooy d'abord ñun suñu engagement yi ñu jël au niveau de notre programme du du grand parti d'ailleurs naa la ko jox ngeen yóbbaale ko maanaam le respect de la parole donnée loolu dañ ko gëm ñun kon nag loolu moom déjà Sénégal yëpp ci bokk gis-gis loolu dekkul lu rafet dekkul lu rafet. moom ci biir langue politique bi sax moom ci waa partem sax am na ñoo xam ne ne d'accord duñ ci ak moom kon nag ñun xam nañ loolu du lu rafet essayé naa trouver nag ay gymnastique euh, ay gymnastique xaw ma juridique pour essayer cee génn mais xam nañ loolu génn wu ci loolu vraiment lu ñu ñaawlu la te ñaa ngi ñaan yàlla vraiment bépp kilifa même sa biir kër boo fa waxee dara na nga ko respecté parce que wax lu wax lu dul noonu moom maanaam nit ku gëm yàlla moomu ko. ah moom ko bi ko defee majorité sénégalais yi dañoo ànd ci affaire yooyu entraîné ko. il faut relativiser. parce que soo xoolee le président Macky Sall a été élu euh, par euh, donc presque deux millions de voix un million neuf cent et quelques voix référendum bi li mu ci am eggul un million cinq cent te avec le taux d'abstention donc il faut relativiser donc loolu <laughs> boo suñu nee la majorité des Sénégalais c'est la majorité de ceux qui ont voté eh, mais soo xoolee ñu amul seen carte paanal nañ fi machine bi machine boobu wax nañu wax fu paan bi toll sax paanal nañ fi machine bi xaalis bi génn kenn xamul nu mu toll Ah, li ñu def euh, ba génnee Panama Papers war nañu wax Sénégal fii tey mais ñu war nañu jëndal war nañoo génnal élection Papers ah génnal ñu fii xaalis bi ñu dugal ci élection yi fu ñu ko jëlee dafa bari de war nañu wax fu ñu ko jëlee. ba na dimbali enseignants yi tuuti sax. waaw euh, léegi foofu foofu laay duggee ci yoreenu réew mi ni muy demee nii enseignants yaa ngi taxaw coow li bare na yéen loolu lan mooy concrètement ban analyse ngeen ci def. xam nga analyse bi ñu ci def mooy dañoo bëgg a naxe xam nga mooy li président Malick Gakou di wax euh, taux de croissance saf-safal moo waral coono bi yëpp. yi ay chiffres xëy na de bokk bi xaw na ñaa jege mais loolu day ay caaxaan la sénégal yi dañu sonn donc je crois que aujourd'hui euh, li Sénégal jànkonteel ñëpp xam nañ ko d'accord nañ ci mooy que seen le Sénégalais comme ni ko le président feu Kéba Mbaye waxee woon le Sénégal le Sénégalais est fatigué les Sénégalais sont fatigués nañu dimbali euh, taux de nu mu tuddati prix baril bi nga xam ne ba pétrole bi wàññeeku na réew yu bëri seen koom-koom a ngi jëm kanam mais ñun tam war nañ ko man a wàññi mu sañ ñu sant ko dans le panier de la ménagère ak dans la poche du borom kër. ba amoon ñu njëriñ. dëgg la xam nga lu ma mënta comprendre nga ni sénégalais yi dañoo sol dañoo tàyyi te ku mel ni Malick Gakou ah comme ni nga ko waxee yaakaar am ci moom mu appel nañ wate non ba pare nguur gi gañe ko foofu. mais loolu loolu est-ce que doy waar côté boobu euh, doy na waar peut-être mais doyul waar pour ñun parce que mooy li ma la wax sànq rek 1 million 900 yi voté loon donc président Mali président Macky Sall léegi un million cent voteel ko loolu aussi xam nga doy na waar mais bon ñun nañu xool li ñu li ñu concerné comme question bi nga posé. Euh, il est bien vrai que bon configuration bi changé na bu baax a baax a baax enjeu yi du benn et puis y a eu le taux d'abstention donc loolu yëpp soo ko xoolee plus le marasme économique nit ñi sonn nañu. Hmm? donc loolu yëpp soo ko xoolee daal euh, di nga xam ne donc euh, plus les questions d'insécurité qui ont plané dans au-dessus de nos têtes loolu yëpp nekk na ay mbir yoo xam ne nii boo xëy na gàllankoor na vote bi de sorte que le vote pour moi n'a pas été très très très sincère quoi ne peut pas être déterminant donc dans une analyse correcte quoi. Hmm. gàllankoor yooyu yëpp taxawee te ay ay ay élections ñëw 2017 lu mel ni yi yow naka nga yaakaar ni opposition noonu la war a taxawee ci 2017. bon 2017 bi man ni ma ko gisee. y aura forcément de ay scénario yu bëri danay am mais am na ñoo xam ne nii parti yoo xam ne yàgg nañoo dugg ci élection xam nañu li ñuy peser mën nañoo dajaloo def seen kuréel lëngaloo lëkkaloo pour def coalition mais dina ci am ay parti yoo xam ne nag certainement du ñàkk comme dañuy soog a judd xamaguñu seen doole xëy na mën naa am dans certaines localité ñu ñu ñu demal seen bopp xëy na dans d'autres localités mën nañu lëkkaloo donc je crois que aujourd'hui xaw na teel pour euh, joxe ay ay ay stratégie mais li ñu mën a wax rek de manière générale mooy ñun am nañ yaakaar ne danañ ci participer te loolu mooy gën a déterminant so façon élection yooyu moo gën a déterminant ci ci moo moo ëpp njëriñ ci population bi ci la population bi gën a participer bu nekkee ni ministère de l'intérieur bi organisé wu ko mën naa mu nekk élection yu leer et puis nit ñi ñu refondre le fichier électoral xoolaat ko baax a baax y a eu trop de cas de à donc loolu suñ ko defee je crois que ñun daal on est prêt à y participer te am nañ ci yaakaar. ci say est que euh, schéma cohabitation la française yaakaar ci. non man euh, je ne pense pas parce que euh, sénégalais na as africain sax laay wax de manière générale xamaguñu loolu waaw xamaguñu loolu dañ naan man séddale bu bukki dañ koy def quoi bii man bii bukki bii njur bii njëkkante la tag naa ci sama loxo donc moom xamuñu bokk-bokk loo yooyu xamuñu ko. <laughs> mais yow Jobaas bi nga tudd moo fa nekk ba pare ngeen dugal fa biir kàtt loolu dañ fa am gaynde dañ fa am gaynde goo xam ni moo man fukki ministre. Marie Yvonne Marie Yvonne moo man fukki ministre ba nga fay liggéey liggéey bu am solo ni ngeen di yége ñuy yëngatu fii ci côté di dem fii ba kayaar ak Jandeer di dem côté Thiénaba ak Fandène noonu la ñu demee keroog Jobaas moom moo fa nekk di piloté keroog on a fait ci benn sëmb ci benn ngoon rek on a fait quatre villages waaw quatre villages population yi ne ko dand ne ko yow lañ yaakaar donc ñun am nañ yaakaar ne bon xam nga politique nag moom léeg-léeg am na ñuy visible ñoo xam la ñu yore di di ñoo xam nag nit ñi leen bëggal seen bopp Marie Yvonne nag nit ko bëggal boppam te moom dafa dafa dafa active waa ci ci ci ci biir grand parti. Mm-hmm. nekk responsable grand parti bi ci Thiès lan mooy sa kàddu mujj. sama kàddu gu mujj daal mooy di demander sénégalais yëpp ñu ràññee benn ñaareel ba population thiessoise ñu xam ne ñun fii ñu nekk di fi yëngatu comme partout ailleurs aussi yeneen région yi na opposition bi nekk benn réunir am un seul et même objectif. mooy jëlee sénégalais bi ci jafe-jafe yi ñu toll euh, régler la crise universitaire la crise scolaire régler le problème au niveau de la santé vraiment régler toutes les demandes sociales loolu daal mooy pour Sénégal mën a am jàmm hmm, sécurité bi yokk li am Touba wàññeeku hmm, ak ñu moraliser encore les conducteurs wàññi accident yi yooyu yëpp bi batalo Joola amee fii nit ñi waxoon nañ fi dañuy def nii dañuy def lii mais bañ fa jógee lañ ko bàyyi gis nga donc indiscipline bi taxawaat na ñu jàppalante daal yërëmante ku nekk respecté la nga xam ne yaa ngi ci.